waxoon nañ leen ci émission bi passé dañoo séddalikoo ci mazahib yi jatti mazhab yi wax nañ leen lan lañ gisee woon saxu weeru koor ñu ñëw ci imaamu Malik ak ak ngiiram ñoom liñ jàpp mooy weeru koor dana saxee ci matuk soxbaan comme liñ ko waxee ñoom ñëpp ci dëppoo ci séentu weer wi ci jaar fukki fan ak juróom-ñeent bu ko defee buñ ko gisul ñu daal di mottali fan weeri fan waaye ñoom nee nañ ca gis-gis ba nag liñ jàpp mooy ñaar ñu maandu wala mbooloo mu bëbb ñaar ñu maandu wala mbooloo mu bëbb loolu nag ñi ngi tegtaloo ci xadis bi nga xam ne euh, alxaaris ibnu xaatim moo ko nettali nee na yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu dénkoon ne nañ jàpp ci gis weer wi an nunsika li ru'yati fa il lam naraahu wa shahida shahida adlin nus nus nuskina dégg nga nuskina bi shahadatihima yonent bi sallallahu alayhi wa moo nettali moo ne yonent bi sallallahu alayhi moo ñu waxoon nañuy séntu weer wi buñ ko gisee ñu daal woor bu fekkee gisuñ ko nañ doyloo ñaar ñu maanu maanaam ñaar ñu maanu ñu jàpp ci loola soog di woor wala ñu jàpp ci loola soog di wori ngiru imaamu Malik nag ci lii lañ sukkandiku ñoom ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo sukkandiku ci xadis bii ci ay boromi xam-xam te ñaar ñu maandu buñ ko gisee la ñuy soog di woor wala mbooloo moo xam ne mbooloo mu bëbb la mbooloo mu bëbb nag moom lañ bëgg a leeral mooy mbooloo moo xam ne ñoom ñëpp bokkuñ fuñ nexee ñée ngi Dakar ñée ngi Tamba ñée ngi Kaolack ñée ngi fu nekk ci ay dëkk yu fasanti ko xam nga loolu mbooloo moo xam na la bëgg na waaye bokkuñ benn baram kon ñooñu ñëpp mënuñoo bokk fenandoor moo tax nag ñu ne mbooloo mu bëgg wala ñaar ñu maandu fii ci ngir ak imaamu Malik nag kenn ku maandu taxut ñu woor fokk ñu am ñaar ñu maandu waa ji lum baax baax ak fu dayoom toll ci ak imaan fii amul ñaar ñu maandu ci ngiru imaamu Malik mënuñ leen a taxaw woorloo ñu am mbooloo mu bëgg boo xam ne fu fasantikoo la ci dëkk bi wala ci réew bi loo xam ne fu nekk ñu ngi wax ne weer wi feeñ ci ci loolu ci lañuy sukkandiku soog di woor mbokk yi ñun nag daanaka ñun Sénégal ci li ñu ëpp lu ñuy sukkandiku mooy ci giiru imaamu Malik giiru imaamu Malik daal lim wax mooy ne jaar ñu mbaanu wala mbooloo mu bëbb mooy tax weeru koor sax ci séentu ko ci jaar fukki ak juróom-ñeent wala buñ ko gisul ñu daal di. daal di matal fanweeri fan mbokk yi maa ngi yeete di wax ne weeru koor ñi ngi koy gisee ci seetu lépp lu ñuy wax ci wàllu boroom xam-xam yu naan mën nañ koo gis ci biddiw mën nañ koo kalkin mën nañ koo nàngam loolu charia bu du cee sukkandiku ndaxte chariatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bii yonent bi moo ciy dogal ak yàlla te yonent bi nee na suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi gannaaw ñun gis-gis laj ju sant te gis-gis bi mooy ñu séddu buñ ko gisee woor buñ ko gisee wori mboolem xam-xam buñ mëna tek te gis amul munuñ caa ndax te yonente bi sallallahu alayhi wasallam boy ci dalil te loolu la di wax ñun nak suñ ngir moy ngiru imam malik neena jaar ñaar ñu maanu wala mbolo mu bëgg bu fekke jaar ju maadu gis nañ ko ñu japp ci woor wala mbolo mu bëgg bu amul nak duñu woor dañuy matali fan ci wéru بقي إن أريد إلا الإصلاح ما وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أليم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نيجي